fekk fi waa làmb ma fekk fi kenn ko xam ne nag wala Ada Fass amee bor boo ko gisee mu fay la ko bàyyi la ci Ada Fass moo juddul Ada Fass yor Ada Fass xam lépp Ada Fass bu Ada Fass dee ñëw arène nationale sax danaa ko waxal mu wax bu bu ne Ada Fass noppil Ada du bokk laaj tey li nga ne moo topp Ada lan la jàmbaar nuyu naa la. frère auzu billahi mina sheytaani rajim ñuy sant yàlla bu baax di ñaanal ñëpp di ko ñaanal sam ñaanal suma papa yàlla na suuf sell si xoom ak kéem ko fekk ñaan suma yaay yàlla na fi yàlla bàyyi di remercier Abdou Lahad lu ñu boole fii émission bi fi ñëwee tey fii ba tey si gàmm ji gis nañ ñu taxaw nitu làmb yëpp taxaw mu doon nit ku baax nit ku sincère nit ku bëgg dëgg nit ku mën a sonn si nit loolu tax tey bés bi tey lu mu laaj tey ñëpp ñëpp ñëw nañ pour dooleel ko pour ñëw fekk ko fi bul daanu cooli moo bëri si aada loolu lépp aada faas la lii baa jàmm la wallaay jàmm day am jàmm moom lépp la lu war a liggéey. ana aada. aada mu ngi mu ngi si jaam. li ma jaaxal aada coow li bu jógee ci li duggaat ci lii lan la aada ñaan succès bi la attanul wala bayre bee diis wala ñim nekkal ñoo ko nangu tabax dëgg. xoolal ko El Hadj Diouf ci 2002 2002 rek yàlla mooy def ko neex yàlla mooy seet mu neex jox la ko fa bi ñëw ci làmb am ñoo fekk tey boo demee tey ñii tey social ku ñoo ko ana fadeel del njëkkee woo ci fa social suñu borom mooy def loolu ku nekk ku lum la moom la moo ñaaleel yàlla bu la moyen da nangu lii yàllaa ko nangu man damay nangu ne yàlla la. mais ngi waxtaan ak aada parce que gis nañu ne ko jege nga te ñeme nga koo wax dëgg te fekk naa la arène nationale aada bëgg a wax nga dem aada bul wax aada waxul ak kenn ci presse bi am nga boobu audace ci moom lu tax doo nga wéet ak aada moom. ñaata yoon bu leen xam na nit kenn du ko xas si média man gor laa Fadel yi dafa day waar ñu mënoo ànd di ko xas si ay micro te nga doo ko bëgg micro dafa day non mais pas xas ko wax ko dëgg. mais maanaam tey boo duggee ci dëkk bi tey ñiy xas aada fa lañ ko xasee si micro respecté wu la bugg amul cër du noonu nànk-nànk booy jàpp gore man aada su ma ànd ak moom si ay naxa-naxa ma bako man ñàkkuma fayda te du ma mës a ñàkk fayda mais nag chaque jour damay nekk sama kër tëdd. lu muy yëf guddi la koy defee te du ko defee faas te mosoo gis kenn muy ànd ak kenn si estaf ñi ne estafu aada aada ànd ak moom di génn defee def mais mbiru suñu borom dañ koy ñaanal yàlla yàlla teg ko si lu mu nekk noonu yàlla mooy def lu ko neex mbër bëgg na coow bu aada bëgg am ni mënu ko am moom bëgg na ñu koy soow ñu ko ñu ko coow fii ñaata mbër fi taxaw ñaata litre fi mën a ñëw tey tey ñëpp ñu ngi si jàmm ñu ñu ñaanal ñu yàgg mais aada la yàlla moo ñaanal loolu dañ koy nangu man dama koy nangu saa su ne bés bu ne. mais ma gis benn benn pas euh, ci ci ci TikTok bi ak euh, euh, ci Facebook bi ma gis benn pas mu koy mu toog bu ko baaluwul àq ah du gaaw a def ruwaat est-ce que yéen jëm ngeen dem xool pas boobu wala wala seen diggante pas bi ngeen réglé ko. moo la gën a bëgg Ada Fass day joxe. paa bi ko paa bi ko tëkku koo koy per kundul man maay wax de fii la teg aada. paa bi ko tëkk. non du tëkkul nit parfois mun nga wax amul jàpp la. bëgg jàppale doo xam noo ko mën a waxee pour bëgg récupéré waat kooku moo gën a bëgg aada moo amul sago si aada aada doo koy jooyloo comme xale bu aay du tus xoolal fu muy taxaw day jékki-jékki dem fekk du ko tay si magum jëmm dafa feebar mais da koy jaree aada day tax tax muy ñëw bëgg la diggante papa toog foo dem dañ koy romb foo dem ñu filmer la buñ fiy toog di loolu amuñ amuñ ñoom bi ñu ci toll génération amuñu woon lu booy am nii ku nekk génération lu mu lay fekkee ku nekk ak temps lu mu lay fekkee ku nekk jamono lay fekkee ñooñu seen jamono amul woon loolu mënuñu woon dégg siiw boobu jamono ji day loolu moo xew te force day am toujours si aada lay lay lay. dé mais aada ci xale yi dañoo xale yan la. xale yi xam xale yi dañoo xaw a tooy. Ah, man da jabaram laa ko xamee. Ah. ndax lan. premier dame may ñaari jabar. ndax yaa demoon ñaani. ah delloo naa la question ñaare yaa ko wax de man déggu ma ko déggu ma si takk ba de. Ah. dëgg yàlla lu mu xew ma dem mais gisagu ma boobu de. gisagu ah. ok. wax la loolu bëgg a xamaat mu den jeexal. maanaam man li ma tey dama bëgg ñu waxtaan ci carrière aada bi maanaam euh, euh, tey gis nañu ne jëli ko. jëli ko waxtaan ak. jëli ko waxtaan ak moom dégg déglu ma déglu ma ma ne Ali gis nañ ni bi natt bi amee yéene wuñ ko ko champion la lu nit di ci làmb war na ko mën a am mais yan conseil nga waxtaan ak moom ci mu xam ni am na lu ne kanamam lu nekk ci làmb lu bari sax. wallahi chaque jour ma conseil moo la gën a xam conseil dama koy conseil ala jàmbaar la Fadel. est-ce que li nga wax mu ngi koy dégg. wallaahi mu ngi koy dégg barke yonente mu ngi koy dégg man man sama bopp laa xam xaw ma keneen ala jàmbaar la. ar kareem da ko ñafee Fadel nañ ko jàppale si loolu jàmbaar la yaa fusul xëyul rek dégg ñu dégg aada aada aada dafa ñafe carrière am ñii di wax nañ dal te def nànk te booy bi te xam ne booy bi champion la. ñu ci bari ñu ko koy waxal xaw ma dëgg la am dëgg nag ndax yàlla du wax lu ma leer ñu naan dey suus day fole yow mi nga xam jege ko yow ban aada nga gis. waaye loolu loolu waxu sénégalais la loolu loolu loolu waxu waxu sénégalais la. ah melul sama xarit la melul ku baax la. neen da ngeen ragal aar ba du melul melul melul nitu làmb la. lenul dañ ko promoteur dañ ko war a sant gërëm ko. de maanaam dañ la bëgg a wax ni la ndax yéen dégg naa ragal. si lan lañ maa ngi koy tontu de. aada maa ngi koy tontu lan comportement yi aada nekkee te bu jógee ci day lan dañ ko ragal. waaw kan lañ koy ragal lan lañ koy def dañ koy ragal. aada joxuñ suñu kër yi dépense aada ñoo koy ñoo koy ñoo koy taxawul ñoo koy guddoon ñoo koy koy ragalee bu ñuy jaayee ragal ak nu ñuy yeddee nit. micro kenn du ci yedd nit lii du ko pour yedd yi pour ñaax la ñi di xas aada yëpp ci micro lañ koy xasee. ñaareel nga gis mu xeex kañ la commencé xeex ah mais day jeex na tey loolu dootul amati bu neexee yàlla yoon jeex na la rek bu jàll waroon jàlloon ngelaw la dem na rek. mais mais suus bi muy suus ak métti bi nit ñi day suus day métti day volé. Ah, réew mi ñëpp réew mi ñëpp ñëpp ñëpp ñu wax dañuy suus. réew mi moom réewu Sénégal lépp la ñu fay wax. réew moom foofu la toll rek loo def ñu ne yow la loo deful ñu wax la da lay suus ñu ne ki day suus amoo ñu ne am na. ndax dañ ko liggéey dañ ko yàq ci gàllaaj wala dañ ko dañ ko. gàllaaj man sama sama mbir man boo ci duggee gàllaaj waxtaan day man góobu ma gàllaaj man personnellement man sama bopp laa gëm góobu ma gàllaaj. comme daa topp sagoom daal ci ni nekkee. nekkee nan. maanaam li réew mi di wax daal sénégalais yi. réew mi la la ñuy wax showbiz dafa am mais ba day jeex. El Hadj 2002 day dem def lu ko neex ñëw toj la def lu soo bis da day jeex. Ah, soo ko foofu carrière aada dina sori. incha allah rabi moom parce que soo ko wekkee ci El exemple boobu bëgguma ko. waaw kon maa ngi jël exemple bi wax dama ko jël dama ne ne comme maanaam ku nekk ak jamonoom ku nekk ak lu mu war a xew dañu doon El Hadj 2002 wax mooy def li moo ne mu dugg si terrain mooy tourné. ana fan la nga toj ba léegi. waaw mais moo jeex mag a nekk mag pourtant ba tey di ku nekk génération bu mu la fekkee Fadel bul jaale lu am lu amul damay poser question foobu daara bu ndaw daaneel la gis na man chaque jour damay wax rek nañ ànd si loo xam ne tey Fadel comme nu may wax rek aada ñuy ñun ñun ñun ñu ngi def lu ñu mën a ñun ñi def lu ñu mën fi nga bëgg ñu xuusee du ma fa xuus xam du ma fa xuus. question xuus mais maanaam bul la ko dénkee muy sa doom bu jaaree lu dul yoon nga ne ko eh lii ak lii ak lii lan la làmb ñi la mbër war a dundee. wallaahi du ay succès laal na xool ci El Hadj Diouf rek da daan toj. toj du fii laa koy waxee. ah ci biir néeg nga bëgg ok gém bi lu fii. gém bi fan la. si biir néeg ñu toog ñu wax lu ñuy wax wala ñu wax téléphone ñu dajal mais ay nekk ci mikro naan ay defal aal defal li nu muy def daal xeex jeex na génn baale jeex. incha allah si kàttanu yàlla loo yëpp jeex na. yàlla nañu